tey dañu ñëwoon pour naqarlu nekk ci dëj boo xam ne bii mooy dëju démocratie tey la ñu waroon a ñu ñëw fii terrain pour voté ñu dispersé ñu loolu moo tax euh, ñu daje fii tey. sunu taxawaay moom plan d'action bi dinañ ko def bu baax dinañ ko gis fan yi yëpp avec toute la société civile pour fexe ba ñu am datu élection pour ñu mën a def élection si jàmm à partir du 2 Macky Sall dem yoonam. le 25 février ñëpp xam nañ ne mooy date bi nga xam ne dañ ko téye woon tey jii. constitution Sénégal permettre ko pour ñu tànn suñu président ñun xamatuñu réew mii réew lan la xamatuñu réew mii lii lan moo ko jaral président Macky Sall wax naa ko waxaat ko kilifa du toog ci ndab ba ñuy seppi loxoom ne ko doy na vraiment sénégalais yëpp a doyal lii booy gor sax boo toogee ci biir néeg nga xam ne ne ñëpp doyal nañu war ngaa mën a delloo Sénégal réew euh, sénégalais yi seen réew.